te nga ci bis muy le 22 sa diggante ak Ama bu yara lan moo la booleeg Ama bu Yaraax ba nga koy jël ndax xam nga ko bu baax. maa ngi nuyu waa TFC bu baax a baax di nuyu sama gaa yëpp ñu fi nekk yéen ñëpp bàyyi seen itte maa ngi jaajëfal bu maa ngi jaajëfal bu baax a baax. ayca loo wax. ne lan moo la booleeg Ama bu Yarax ak bi koy jël ndax xam nga ko baax ndax mbër la boo xamante ne daanoogul. lan mooy loolu. waaw daanoogul ci mooy ku daanoogul. bokk na ci champion yi tamit. incha allah le 19 dina daanu su kattan yàlla. man man laa. man boo gisee lii man dañoo am yaakaar ci man man waa parcel dañoo am ci yaakaar ci man dama bokk ci espoir parcelle yi yi war a dem man kii wan naa ko am na lu ñu boole mooy ñàkk adversaire la ñu boole mhm. mais du tax ne ay adversaire la ci nii. ba ko waxee loolu dafa bëgg yëg ci kaw kaw te du yow yaa koy téye pour yëg ci kaw. fii du jàllukaay bi am na lu ma ko wax dama ko ne. wax da yóbbante naa ko mais déggul wax ji bu baax a baax dama ko ne gis nga kaani guwaana amaa bu yaraa dama la ne gis nga kaani guwaana wala kaani Tyson bis boo ko yooyee bu saful sa gémmiñ dina saf sa ginnaaw kii bi boo demee duus la force waaw bu saful si gémmiñam dina saf si ginnaaw bu demee douze par la force waaw. a xaar ne mooy bi ci ñëw bi ci bëre bi ci xeex a xaar sa diggante ak Ama bu nee naa ko bii bu dof bi la bu teng bi la. bu joolaa bi la bu dof bi. comprendre sax. maa ngi koy wax gis naa nag daa yu koy ñu koy galvaniser mooy ñu mu dëkkal ay ñoom wës jàmbaar booyame xam nga mbër bu musul daanu wala am combat bu mel nii. Hercule xam nga boo amee adversaire bu mel ni Hercule mosoo am adversaire bu tolle noonu dayoo moom combat bi attanu ko te man yàlla xam na ne Ama terew ma nelaw terew ma nelaw du ma toog sa di bàyyi xel si moom du ma toog sa di xel si yow lenn rek laa la bëggoon le 19 incha allah gars yi lay galvaniser waaye ñoom wër jàmbare noonu su ma la daana ñu may ma sens loolu laa bëgg su ma la daana ñu may sens combat bu yeex lépp mun na ne ça dépend ci moom rek. lépp a ngi fi ñun liggéey nañu li ñu war a liggéey xam nga lenn lu ko ëmb moom lan moo ko ëmb mooy daa bëgg a xam Hercule lan lay ci bés ba Hercule lamb lay andi ci jour ba lamb waaw arbitre sifflé dagg day saf sap man moom day saf sap Ama bu Yarax ñëw ñàkk a ñëw man damay ñëw mu ñëw ñàkk a ñëw xeex bañ xeex bëgg xeex force la force la bañ xeex bëgg xeex saa ay góose bi da koy ñam de sa sa yi ñoo ngi wax ay góose bi góose bi da koy ñam par la force loxo doy bi da nga koy ñam gis fii nii rek xam ne du làmb ju ndaw ñoo xam ne ne gaa ngi koy waaj bu baax baax baax le 19 incha ñoo ngi koy waaj bu baax baax ñoo koy waaj ak samay mbokk yëpp di ñaan yàlla suñu borom moom mi nga xam ne mooy borom kun di maye di maye ñoo ngi ñaan yàlla nañu may le jour le 19 parce que liggéey nañu lu ñu war a may ndam te incha allah bu dee jom ak fulla ak fayda ak jom ah ak gëm-gëm parce que man du ma tiit du ma off lu ma yàlla suñu borom jël te incha allah dama koy waaye ñun ay Pokola ay Liss Ndiago ay Pokola ay Liss Ndiago ñun ñooñu lañ soxla ay Mor Kankan ama bu yara du la maa ngi koy gis na mu naan ay yara ay yara ñoo koy yee affaire yooyu dama lay laaj na yara am na àll la tege. yara am na àll laa wax. moom parc ànd bi ne ne dañ dañ leen dañ leen tëj bu ñu leen bàyyee waa yara dañuy daw si héberger ji parcelle dañuy daw suñu héberger man amul lu ko koy yóbbante lu ma koy yóbbante mooy maanaam dama ko wax lenn gis nga ma maatu Amadou Yara maa ngi lay ñaanal jàmm parce bu dul dara man sama naw leen sama mbokku mbër nga sa booy nag xam nga ay violence la ñuy woote lamb du violence booyaa ngi woote ay kii di saaga suñu waajur yi te suñu waajur yi lu ñu sonn ci ñun pendant neuf mois ah, yàgg naa di ko wax yàgg naa di ko wax man Hercule nga saaga ma kii ma loolu kiiwu ma feregeewu ma parce que man du ma xof xaw ma sax fu ñu nu ñuy nu ñuy tiitee pour ma ragal parce que da cee baax mais man xaw ma lu ñuy ragalee ah. lan may wax bàyyi saaga yi ak xattal bi waaw parce que man wax naa la man dama dof man wutan bi laa wax ko joolaa bu dof bi la maa ngi masaw waa koñ bi bu baax a baax a baax waa koñ bi sama dëkkandoo yi fii waa koñ bi maa leen di masaw dina na ñaanal seen doom waa parcelle 1 ba 26 maa leen ne gaay le 19 ne ñëw ñu dem jëli ni incha allah maa ngi gërëm waa waa waa waa TFC waa ñoom ñëpp maa leen di gërëm sama booy tout tànk yi ba ñu noog ñi waxtu tey bi ak mbëru parcelle yëpp ñoo xam ne ñëw nañ fi ñëw ñu fi ak ñoo xam ne am nañu ndam am nañu ndam maa leen di félicité bu baax a ñu ñooy Petit Lo ñoom ñoom ñoom Bécaye gars yëpp ñi am combat yu ñu jëm ku mel ni man xam ku mel ni Anaconda ak Mbacke Faye yàlla na suñu borom may ñu ndam ñun ñëpp parce que ñoo bokk bés ba daan sama la moom ji jëm ñi tamit mois de juillet maa ngi koy ñaanal ndam parce que bi combat bi combat am la man moo ma doon entraîné salle ba di ma yen lu metti lu métti métti la ma doon yen xam nga sama waa écrit maa ngi gërëm mbër bi ñoom tamit ñu sonn ci man damay nekk géej bi ma may dara contact yi affaire tar tar tar boo xamante ne gars mooy loolu